sɛneɛ yɛ na agyina nya gyiri di tatadwo abere yɛ wulɛ yɛ bɛ nye lulu sɛ di sen dole mbokki internetu kaza TV ñu ngi fi tay ci Augusto comme niñ leen ko waxé won ci champion bu mag bi ken dootu ko natable fi ci rawati rawatina ci Casamance ñu ñëwoon tey nag di waxtaan ak mom ci carrièream ci combat bi mu jëm ci combat yi mu joggé ak euh, ci ay supporteram ay fansam ñu fekk ko fi nak ci fi muy entraîner ci souci Auguste nuyu nañ la. maa ngi lay li waraloon suñu ñëw sax lu ci ëpp dafa am liñ déggoon mais balaa ñoo ñëw ci loolu dañ lay bàyyi nga présenté wu nuyu internet Casa TV bi ñoo nay ndax léegi Casa TV doonatul Casa TV bi ñoo na mais Casa TV yu àdduna bi yëpp la ñu bàyyi la nga nuyoo. Euh, d'abord maa ngi nga xam ni liggéey eh, yombul soo nga gis nga mun na ko def di leen nuy di leen gërëm di leen sant eh, di nuy sama mbor yi yëpp nekk fii nii di encouragé booy di leen wax ni nañu lu bu baax làmb yombul lamb dafa métti waaw di nuy sama manager Bakary Cissé di ko gërëm di ko sant borom baax la yàlla na yàlla fay ko bu baax comprendre nga. Mm. waaw nuy sama boy bi ale bu gaaw di ko nuy bu baax a baax combat bu mu demee nii euh, les vingt et un décembre yàlla na yàlla jàppale ko yàlla na yàlla may daam may bon daam bu baax parce que sama boy la koo xam nga. Mm. di nuy mbor bi njoone yëpp. képp ku mbor bi njoona maa la nuy bu baax mm-hmm. képp ki amateur lamb bi njoona maa ko nuy bu baax di nuy kilifa yi yëpp xamante ni ñoo dekk fi bi njoona du nuy yëpp daal du nuy waaw xam nga nuy xam nga nuyoo mbër moom du jeex nuyoo mbër du jeex waaye dañuy xuus rek tuuti waa Sinjam bu baax baax na dañuy sama turandoor bi Auguste Junior bu Sinjam maa ko nuyu baax a après léegi nuyoo yi ñu def ko ci ci ginnaaw ci jeexitalu émission bi ñu bëggoon xam rek Auguste fan la déparé lan moo ko dugal ci làmb ba mu yegg si fii tey Auguste dafa nekk tout temps dafa visé bore bu bugg a faire bore yàlla def ñu jàppale ko mu ngi doon bëre nii si village yi ñu jàppale ko yàlla jàppale ko bu dem bu dem jàng bëre école lutte gréco-romaine waaw ma def cinq ans de formation lutte gréco-romaine waaw ki stade bi kii naka a stade bi Ziguinchor bii bi ma jógee Guinée ñëw foofu noonu foofu la ñu njëkk bëre kii ñu njëkk ñëw ñu ñëw kii ci entrecamp yu li ñu doon def di jàng waa Sénégal dañuy dem Guinée Bissau waa Guinée Bissau dañuy ñëw Sénégal. kan moo la dugaloon lutte gréco-romaine da nga duggoon da nga def formation ba dugg fa wala. non non non ñoon dañu ma gis. li mhm. ma doon bëre. Mhm. si village yi. Mhm. ñu xam ne kii mbor kaam la. dañu koy yóbbu ñu formé ko dina doon mbor. waaw foofu la ñu ma jëlee ñu yóbbu ma. ma def cinq ans si école lutte gréco-romaine. jàng ko dem bëre presque dem na Bélarus Russie demna naa compétition mm. dem Afrique du Sud demna mm. naa Benin dem Togo demna Niger comprendre nga mm. loolu yëpp euh, couleur Guinée Bissau nga don représenté demna Burkina comprendre nga waaw essa gis lutte record men la don defoon gis nga yàlla def ma jóge fofu non ñew sama mbokk yi nekk fii Kousi région Sédhiou ñu jël ma ñu indi ma ma ñëw tok fofu non fofu la commencé bore a que yaa ngi gis foofu la commencé forêt bi dem Bakaw yi Bakaw ba yàlla def ma nekkoon sa premier combat fii Sénégal. ko. Hmm. ma am combat man ak Samba Badji Lankar ma bëreeg moom Sam Samba ma daan ko. Hmm. waaw yàlla def ñu dem bëreeg Kanelaay man njëkk daje foofu noonu man ak kii. ak sarate hmm. ñu bëree foofu bëre bu métti hmm. ñu am marché nii hmm. ñu ñëwaat ñu bëree Kizito fii combat bi taxaw fii Kizito ñu bëree ñu am marché nii ñu toogaat ñu bëraat encore ñu am marché nii ñaar yoon troisième fois bi tëbi ñu bëree malet moom ma daan ko waaw parce que temps boobu moom moo ëpp doole ëpp ma poids da nga gis ni du damay bëreeg moom du ma ko mun a daan ndax lu tax ndax poids bi sien gis mais bu ma demee di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey poids bi di ñëw poids bi di ñëw waaw yàlla def maam daan ci toog. léegi boo ñu doon résumer sa carrière rek tey boo toogoon nga résumer sa carrière ban ban résultat ngay jox sa carrière carrière bu baax nga ci yow carrière bi carrière bu baax la wala ci yow am na ay gàllankoor yi nga jot am ci sa carrière. Hmm. Euh, li ma def ci làmb yaakaaruma da benn mboor dina ko def ci biir simamo xawma nga dina ñëw parce que un man ma mbor boo xam ne fépp ma munti jeg tournoi du xaar du ma man de ma rek sama ngemb takk sama dàlla sama sak ma jublu dem bëre tournoi bi te yàlla dina ma sutura ma bëre tournoi bi daan ñibbi jël tournoi bi ñibbi si est ce gis mhm. man ma mbor ni man du wax ni diw la soxla dama dem si sëriñ yi ma dem liggée ko ba pare ma door ko jël. Mhm. man du ma boobu noonu. Mhm. combat taxawee rek man pare na pour bëre man ma mbër boobu noonu comprendre mhm. li ma def ci carrière ci làmb mun ma ko wax bu ma ko waxee tey dinañu fanaan fii. est-ce parce que lu ma def si ci làmb dafa dafa dafa rëy. est ma dem boo daaw géej ak daaw ma am gàllankoor bu métti ci làmb. bu bëri mu ne non Auguste dafa jeexal mm-hmm. Auguste mënut daan kenn mm-hmm. waaw Auguste dafa mageer mm-hmm. comprendre nga wax boobu yëpp dëgg naa ko amul lu ñuy waxul mais loolu moo tax yàlla def la def yëkkati la après bi yóbbu la teg la benn natt boo xam ne bu xool la ndax est-ce que yow muñ kat nga ndax naka la kon maanaam da nga bëgg a wax ni yow waaw daaw wala boog daaw jéeg nga commencé di am ay ay daanu wala di commencé di nit ñi di laam-laamee daaw géej ah. dama bëre nii hmm. amul ku ma daan hmm. marché nii laam mais gars yi mu ne gis dafa maget hmm. daaw ma bëre combat bi ma niil ko daan daaw ma ñëw fekke tan nawet la ma béy dama béyoon bu baax nekkuma di entraîner parce que man xalaatuma sax nda bëre dina amat tan nawet boobu yàlla def papis def na tournoi ma ñëw ma ñëw bëre tournoi entraîné ma defuma dara man bugguma sa bokk ci tournoi bi gars yi def ma topp topp topp topp pour ma ñëw bëreet ma ne nga déedéet fi ne ni moom nekkuma di entraîné nekkuma di def dara or bii maa nga béy maa ngi si tool bi gis nga yàlla def ma ñëw ma bokk ci tournoi bi ma ñëw bëre tournoi bi booy bajaana bi daan ma ci tournoi booy abene waaw booy bajaana déedéet du booy abene tournoi bii nii bu papis bi waaw bu papis bi est-ce que yaa ngi gis mm. mais boo xoolee combat boobu mm. parce que boy bi defa amone avertissement avertissement dama taxawoon di xaar di xaar artu joko avertissement artu souffler fek man nangi taxaw boy bi duguma ma bi ma dugg ma bugg a résister munu ma parce que boy bi def ma jekku parce que dama taxawoon boy bi bos ma ma toog bu bàyyi comme mënuñoo comme mënuñoo compter sa victoire yi nga am ci lamb mais yakarna war nañu mën compter ñaata défaite gis ñaata défaite la am ci lamb ci lutte traditionnelle bir Casamance fi bir Casamance fi ah bu buma jumoon bu ma jumoon yaakaar eh. na ñaar rek. ñaar kan ak kan moo la daan. booy benn moo ma daan ci tournoi. Eh. Hmm. demi final ak boy bi bu ma e demi final. booy bajan, booy bajan, bu ma dan. daal. dafa mel ni ñi tudd booy yëpp moom jiguñu la de. ah ñi ñi tuddee booy yëpp jiguñu la de. ndax booy abene moo la daan. waaw ak booy bajaan. waaw kon ce qui veut dire que képp ku tuddee ba moom booy rek war non non non parce que nga. parce que nit ñi dañ ne léegi paa nga màgget nga. <laughs> non mais nga am nga Auguste ñëw na hmm. Auguste ñëw na am heure bi sax gars yi waxatuñu gis màgget na hmm. waaw foo tourné mu ne non waa ji ñëw na hmm. waaw ah. parce que waa ji ñëw na doo déggatoo ñu wax ne Auguste màgget na Auguste paa la comprendre nga loolu muy yàlla noonu lay def foog nga gum ni yàlla mooy mooy teg moo teg bu xool la waaw yow ban na ba ban nit nga mm. waaw est-ce que yow mun nga muñ yow munoo muñ mm. waaw comme lu mu daal bala rek bu dem gadda gars yi mu ne bala pare na mu tuddaan nit mm-hmm. mais mu ngi ni ñëw na ci kaw wax jooju noonu ci laay ñëwaat waaw parce que booy abene daanoon na la waaw jamono ji coow li bëri lool sa diggante ak moom waaw ñi naan Auguste dafa ragal waaw parce que booy abene euh, promoteur bi pare na pour tëgg làmb ji mais Auguste dafa ragal waaw xam nga wax nga exemple Balla. waaw Balla bi mu ñëwaatee. Mhm. ci gàddaay bi. waaw Modou Lo la jël. non non Gris Bordeaux. waaw Gris Bordeaux bokk. waaw Gris Bordeaux jël. mu bëreeg moom. waaw mu nul. waaw am mu nul rek ñu ñu jox ko victoire par euh, kii avertissement. par décision mu ñëwaat mu jël koo xam ne bëre woon na ak moom. waaw mu daan ko moom moo ko daanoon. yàlla def mu daanaat ko. waaw lu tax nga bañ a jël Boy Abene. Boy Abene man. boo xoolee. combat bi ma jógee nii. non balaa ñoo ñëw ci combat boobu dina ñëw ci combat boobu. ndax ñëw combat bi ma jógee nii. moo ëpp Boy Béné moo ko sut. moo ko waxuñu loolu lu tax rek da nga may déglu bu pare. jël naa ko bor naa moom daan naa ko. Mm-hmm. daan bu set wecc yondi na vidéo bi nga xool ko. gis nga lu mu toll. waaw bor naa moom daan ko. Mm-hmm. ma jël ambulance ba Thiès or bi hmm. moom lay waaj. dinañ ci ñëw boobu déglu rek boobu dinañ ci ñëw na déglu rek. Ah. na maa ngi ñëw. Hmm. ma jël ambulance bu Thiès. Hmm. nga xam ne booy abee opour ko. ak ñi ma jël yëpp champion lañu. nga xam ne ñoom la jël or bi kon man gisuma li ma lan moo tax ma ragal booy abee lu tax kon bëggoo jël combat bi. du ci man. ci kan la ci promoteur bi la. du ci man de. maanaam combat bi combat bi ci promoteur bi la. o gis lu muy laaj promoteur bi attanu ko. mais mais promoteur yi combat bu ma jël ma bëreeg moom ma bëre nii ma yàlla may ma ndam ak bi ma bi ma ak bi ma maa ngi waaj nii ah ñoo fay ñoo ñoo fay li nga xamante loolu la war la bëre. mais lu tax sa adversaire moom mu nangu cachet boobu noonu. te donte yow moom moo la daan yaa war a soxla revanche. yow yow ngay ngay daw loolu. waaw lu tax loolu. mais xam nga. guy ma victoire or bi mm. or bi mm. du affaire champion laa wuti. man ut na champion am naa ko ba pare est-ce que comprendre affaire champion nekk mbër kaami liggéey naa ko am naa ko comprendre nga mhm. kon lu des ma war a liggéey li nga xamante bi suba ma noppalu mhm. est-ce que kon man muruma ma munuma di uti victoire rek di uti victoire nii ma toog suba aw ma sa lu may def mhm. comprendre nga fi may waxee kon promoteur bi dafa war a am ni boo buggee mbaxal dafa am dépense am boo buggee ceeb jeen dafa am dépense am ah, boo buggee yàpp <laughs> dafa am dépense am comme bi su fekkee ceeb yab la bëgg defa war na dindi dépense boo xam ne war na indi ceeb yàpp ah, comprendre nga man loolu la bëgg a wax promoteur bi maar production loolu la lay wax boo buggee ceeb yàpp da ngay jënde xaalis bu ceeb yàpp boo bugg a jën pour nga def sauce maafe ñanga tàng da ngay jënde ki li nga xamante pour ñanga tàng la comprendre nga mm. o oh, boo bugg a agangulee da ngay wutee kankulee dégg nga man loolu rek la la mun na wax. Ah, kon pour mu combat bi boo ko buggee wax. loolu ngay def kon maanaam dafa ragal moo tax muy jéem a yokk prix. non non non Auguste dafa ragal. loolu la gaa yi jàpp loolu la gaa yi jàpp loolu la gaa yi jàpp. mais pardon. Auguste dafa ragal booyaa bi ne moo tax kase boobu. waaw pardon ah. pourtant pourtant loolu du loolu du xaalis. du xaalis mais kon lu tax. bëriwul lu tax jëloo komba bi rek. combat combat bi promoteur bi des sa promoteur bi dama ko wax Casamance yëpp xam ko Pour promoteur bi la des promoteur li mu bëgg lool mo sama staff duñ ko mun na ko mun na su kii nangu lu mu bëgg lu mu bëgg lu mu bi ki manager bi wax na def lool bu xol ne duñu jël combat bi mais pourquoi lamb ma mënu développé pourquoi. lamb Casamance développer wul. mais mais kii ki le combat bi fi ni le 19 octobre n'est-ce pas. Hmm. le 19 octobre. le 19 octobre ñaata million la am c'est

yëpp xam naa ni Auguste Boy Abéné du combat bu ndaw la. waaw combat bu xam ne Casamance mais yëpp ma ko soxla. mais war na doon yow sa combat. ndax dafa sama combat la nangu na ko sama combat la. bu doonoon sa combat doo yokk prix ma hmm. man su ma jëlee combat ma xam ne jël na combat sama na law du tëddooy du ma mun na tëdd na law tranquille ma munu ma parce que man demee calcule ne quatre heures hmm. war na ma fekk si entraînement cinq heures du war na jóg dem entraînement. war na dem sal musculation dama koy fay sal musculation xam nga moom mako mhm. sal musculation bi buma ma jugee fay mhm. te bo bëgg entraîner sal bo baax da ngay dem Ziguinchor mhm. da nga chaque jour da ngay fay 500 francs pour nga entraîner chaque jour ak li ngay lek <coughs> ak li ngay lek c'est à comprendre ah parfois da ngay bëgg nga jënd yapp dalé parce que li ngay li ngay liggé dafa métti parfois da nga bëgg jënd boisson nga naan comprendre nga parce que combat boré dolé la laaj laaj fisima physique bu doy comprendre nga kon promoteur bu lay di la waxee wax deux cent mille te moom mu ngi teg combat di am million pourquoi sax moom mënul fay million pourquoi moom mënul fay million moom maar production mais yow Auguste yaakaar nga ne fi biir Casamance nit ki mën naa teg lamb boo xam ne dina fay ñaari mbir yëpp cinq cent mille mu am un million yow loolu yaakaar nga ko yow komba fii ci billet ci billet sept cent wala billet huit cent maa ngi ñëw maa nga ñëw ah. maar production combat bu mu tegee fële jàngo ah. Ateba ak kii Ateba ak kii ak Jibote. 3 millions la am ci combat bi. mais lolu foo ko mom ci bopam momako wax. 3 millions la am ci combat mom moom ko wax. mom ci bopam 3 millions la am ci combat bi. Mhm. est-ce que comprendre. Mhm. kon pourquoi mënul fay mbëri 500000. mbor yoy mu boré pourquoi mënul fay ci 500000 ci 500000. ñu boré mun na leen fay ki nekk 500 500000. Mhm. ñu boré est-ce que gis. mais développé lamb war na nekk ni ni nii mbor mbor noble nga wara don bo boré ben combat bi su jàllee tey suba gars yi bu la gisee ñu xam ne kii jogoon dem ci combat. mais mbor boo xamante nga bore combat tey suba ñu gis la ak benn dalla ak benn cara boo buy ne boo joxe un dore cara bi kii bi kii bi kii. nag bu dàgg. di ko kii lool lool loolu ñu ñàkk fayda mm. lool du comme loolu du lamb kon léegi lamb lamb dafa war na développé biir Casamance comme temps mm. du mu lamb développé mm. foo ñu def lool foo ñu ñi ñi nangu lool combat boo ko bëgg a organiser fekk sax nga organiser ñaar combat mais ñaar combat yi ne jaar yoon loolu mu ëpp nga teg fi tey nga teg fële suba nga teg fële gannaaw suba. ok léegi moom. waaw waxu support waxu eh, internet yi laay wax. waaw ak waxu amateur yi nii. waaw pour ñu tëjee foofu rek nii. waaw Auguste dafa ragal Boy Abene. waaw loolu moom dañ koy tëjee foofu moo tax nangul jël combat bi ndax li nekk diggante ak promoteur bi warul tax moom mu bañ a jël combat bi. waaw waaw loolu la amateur yi wax. ñu dem ci sa combat. non non non déglu rek pardon foofu dema ma ko lay firi foofu noonu Auguste ragalul booy abene. Mm. dama ne promoteur bi lu mu waxante ak manager bi. si fekk te ndax moom respecté na lool. na ko def bu xool ndax combat bi di taxaw. am nga moom dafa buggoon combat bi mois de avril. Mm. ma ne ko man mënuma bëre combat mois de avril. lu tax yow doo ngay taamu ay def na déglu rek. Ah. man dama am li nga xamante war na koo régler mois de avril. Mm. combat bi na ko indi sa mois de janvier bii mm-hmm. eh ñu bëree ko xam nga ne man pare na mm-hmm. am nga man wax na ko lool xam mm-hmm. nga man pare na waaye mbër bu la waxee combat munul dem foofu date boobu dafa sori indi ko sa mois de février sa boo ko bëggee indi ko ñu bëree ko foofu noonu nga xam ne man pare na pour ma bëree ak moom est-ce comprendre man pare na léegi moo des lu ko luy luñu luy luy waxante ak manager bi su respecté loolu rek combat bii taxaw bu suba suba sax ñu bore ko ki le maire gaañee dina la wax leneen mbor boo xamante yow buggoo daanu bul takk ngeen bu nga boy mhm. man loolu la gëm ma daan nga daan léegi ñu ñëw tuuti ci ci Bignona ñu ñëw tuuti rek ci benn parenthèse bu ndaw waaw Auguste ban problème la am ak amaat ama supporteru Bignona yi lu tax gis keroog bi ko abe booy abe na daanee mu mel ni fet ci nit ñi ñëpp kontaan ñëpp di sibile ni Auguste daanu na Auguste dafa faalewul waa bi ñoo na fi mu dëkk moo ba gars yi bàyyiwuñu ko xel supporté wuñu ko wala lan te nit ñaa naan Auguste képp ko tegal doo gis supporter ndax Auguste amulay supporter Auguste kan amulay supporter minicar sax du koy du koy feesal <laughs> waaw tontul ci ah, loolu rek gars yi boo ko fekk na law <laughs> bul ko yeew waaw tontul ci loolu gis nga combat boobu noonu. tournoi bi xam nga des boo nekk number one gars yi mu ngi wutu sa pexe pour ñu daan la te mënuñu la daan. Mm. ci tege tournoi nga jël ko ñu tege combat nga jël ko. Mm. parce que boo xoolee gars yi dañuy dem ba jaxaale ak tellement xamatuñu fu ñuy jaar. Mm. man sax bu ma tukk sax tukk boo xamante ne pour sama soxla la mu ne Augusto mu ngi dem si série yi est-ce que bi gars yi jaaxle xamatuñu lu ñuy def. mais gis nga bis daanu boo war na daan da ngay doon cune mm. est-ce que gis mm. booy abene boo gisee bu daan ma maa def erreur moo tax bu daan ma mais mbor moom boo deful erreur kenn du daan romam mm. nangu na victoire moom mérite na ko parce que daan na ma maa ngi koy bu baax champion la c'est un comprendre awma lu ma fi ñaawul ci moom mais Auguste dafa sonal gaay def leen sonal parce que ñaataat ñaata at rek bu nekk vingt heures. maanaam gars yi changement lañ bëgg quoi. voilà merci <laughs> gars yi changement la ñu bëgg mënutuñu am changement. tournoi am Ziguinchor ma toj ko tournoi am Bignona ma toj ko tournoi am feneen ma toj ko combat am combat mu munta am ma daan léegi gars yi jaaxale def na bu nekk mënatul mhm. mais booy abene xam nga bu bu teel a xamoon ni kii mbor kaam la booy abene du ma daan mhm. parce que man bëri naa moom jox am na avertissement combat bi deuxième tour la ñu demoon. Mm-hmm. combat bi foofu la ko jeexal booy benn dee toogoon. Mm-hmm. mais waaye buma ma jàpp côté droite bi ma bugg a logo gauche bi pour ma mun liggé c'est mm-hmm. est-ce comprendre ma dindi logo bi bii jàppul bala ma dugal bi foofu la profité action action bi bu bêtement balama ma comprendre ma bugg reculer rek que mom dugal la tank ba pousse léegi bu kaal bu dugal tank ma ma dóor tànk bi rek. bu puus ma rek sama poids yóbbu ma munutuma am déséquilibre bu puus ma rek bala ma kii ko ma xot ko pour ma sànni ko ma mun a tourner ak moom fekk man c'est trop sama fiche bi daal na. waaw mais ñëpp a ngi naan Auguste. moom daan nga déglu rek waaw non maa ngi ñëw waxu booy abene waaw maa dirigé <laughs> maa ngi ñëw waaw yaa dirigé waaw léegi dañ koy bàyyi ñëpp a ngi naan Auguste waaw munul bëre ay takk la mën ëñ fii loolu rek la mën wala mu daw combat bu xamee ni booy bi saay saay mbër bi muy dajal saay saay la mu daw ba mu ba ba arbitre siffle fin ñu jox ko ñu jox ko match nit moo tax Auguste bu naree jour bu mu nar a daanu ay ay défenseur lay doon Auguste mënul bëre looy tontu ñooñu. xam nga tey nit def la gis rek ba bañ la comprendre nga. Hmm. nit def la gis rek ba bañ la. Hmm. te boo ko laajee kii lu la def nga bañ ko moom du la wax hmm. lan la. maanaam loolu waxi. waxi noonu la quoi. voilà merci. waxi noonu la voilà merci <laughs> foofu fii lañu ko fekk. Ah. kon sant yàlla la. parce que ñëpp la bëgg. Hmm. kii de am supporter am kii am supporter am kii am supporter am am supporter waaye ki la wax ne Auguste day dem làmb mënul feesal minicar. Hmm. Ah, sama combat bi ni ñaar minicar laa yóbbu. ñaari minicar ci Auguste ci champion bu mag ñaari minicar. non déedéet man loolu la ah. parce promoteur bi benn minicar la ma jox benn bi maa ko yóbbu sama bopp. benda bi mako yob yóbbu sama bopp benn bi mako yob comprendre nga mm. lamb bi gis nga ko yónni video bi gis nga lamb lu mu feesee mm. o gis mo pour supporter mm. gis nga fi nit gis nga safar bu yalla tal yow mënu ko sotto ndox bo nga fay safra yalla tal la la wax de ko sotto ndox bo nga fay ko bu la ne sa nga sotto ko ndox geej bi de nga gis safra bi mu ngi ci kaw ndox geej bi di dem rek du tal jour ba yàlla mu ne tey lay fay tey lay fay kenn muy ci dara hmm. safa bu yàlla taal kenn muy ci dara hmm. lambu bëre dama ko mun ana mbër yi dama la bëgg laaj benn affaire mbër yi ma bëree yëpp dama leen laaj man bu ma laaj du ma la tontu dara maa lay laaj bokk gaay maa lay laaj ma bëree yëpp dama leen takk daan la ñoom yëpp takk daan rek nga fi def ah. loolu la gars yi wax takk daan takk daan rek takk Modou bi ma koy buñ la xañee buñ la xañee ëñ bi daal hmm. yow doo gis mu leer léegi combat bi bi bi ma la bi takk daan la ah man gisoo ko yaa gisoo gisuma ko gaa yi ñoo ko gis waaw gaa yi ñoo ko gis xoolal gis nga fi biir Casamance fii maa dàq mbor yëpp bëre parce que kii daan ñaata combat di tegli tegli tegli victoire nga xam ne kooku mu dàq bëre hmm. man un dama mun na défendre deux dama mun na tàkk hmm. troisième dama mun na bëre hmm. maa mbor boo xam ne dina la def action su ma def la bii nga bañ ma def la bele nga bañ ma def la bii ba heure bu ma la yàpp daan la léegi nag ñu ñëw ci sa combat bi nga am le o am nga combat de xaw ma kan mo la ne nga jël ambulance waye am nga problème de. ambulance o kan mo la digal nga jël ay ambulance ambulance bu ties wuy ma gis nga man man ma bugutul boro combat bo xamne combat chala chala yi man. Hmm. combat chala chala la bugutul yow gëm nga ni mën nga daan ambulance. man ah. man dama entraîner hmm. bo bis ma nga ñaan yalla bo le 29 yàlla def jàmm ñu daje ñu bëre ki le maire gagné man musuma taxaw ma ne mbër maa la mun loolu musul nekk munul nekk musul am musuma wax ni mbër maa la mun loolu musul am en tout cas daal les vingt neuf sama supporter fépp fu mu munti dem jox na leen rendez-vous les vingt neuf que balang le 29 décembre bii jox na leen rendez-vous balang nga ñëw ngeen seetaan ñu waaw ki le maire gagné en tout cas daal artu bu suuf lee dinaa bore bore bu rëy boo xamante sama supporter yeb dinañu kontaan mm-hmm. ki fay bi am bu défendre de ki fay bi am bu ci arène mm-hmm. yàlla baax vite na la le 29 mm-hmm. nga dem seetaan ki défendre man gumuma yooyu man champion la billaa wallahi tallaay bañ bañ nangu la rek comme ñu ngi ci jeexitalu émission bi waaw euh, sa kàddu bu mujj lan ngay ñaax ñi nekk ci làmb nan nga gisee làmb bi ñoo parce que gis nañ ni légui mën nañ tok 6 mois ba 7 mois wala bok at sax atu yalla du mhm. gis lamb am bi ñona yow lan ngay wax ci lool ak nan nga gisé lool merci jere jërëjëf yow nga li nga xamanteni neexna yow nga li nga xamanteni neexna ma nga ngi nuyu yëpp résumé ko nak wa merci émission bi lay wajé merci ma nga nuyu wa Casamance yépp di nuyu waa Bignona dama bëgg ngeen déglu bu baax gis nga Bignona yow ñu bokk benn mbir maa ngi yow di xeexante man bugguma nga dem yow buggoo a dem lu ñuy demee lu ñu mun na dem mm-hmm. xeex boo am fii bi njoona loolu mu tax làmb bi a dee mm-hmm. boo déggee làmb am village rek la làmb am parce que ñoom ñoom seen biir dañu bañante mm-hmm. dañu bañante kii nekk di xeex kii kii nekk di xeex kii yow buggoo a dem kii buggul ma dem mais waaye wërsëg nit bàyyi ko kii ak wërsëgam kii ak wërsëgam nañu bokk parce que benn bool la ñu nekk ñu bokk ñu bokk ñu bokk ndey ñu bokk baay ñu toog ñu ñu bokk ñu bokk ndey ak baay ñu nekk ñu nekk benn ñu mun na organiser lamb biir bu njoona dafa am gàcce boo xoolee suuf bi lu mu suuf bi comme Dakar la xoolee suuf bi njoona fii xoolee suuf bi amul fii biir Casamance fii nii nii amul on nga dem Kafountine on nga dem Abene on nga dem Cap Skirring Ziguinchor fi sax amul suuf bi am fii ne amul Ziguinchor fii amul amul gis nga fii la mbor mun na entraîner bu am li mu bëgg fii biir Casamance fii fii nii suuf bii nii mais waaye fii bi njoona fii gars yi bugguñu gars yi di xeex bugguñu xoolal mbër yi yëpp li ñu nekkoon fii entraîné bori bi am doole booy yëpp découragé. waaye Auguste. waaw mbër yi ñoo yàq làmb ji. mbër yàq ñu làmb nit ñaa ngi naan mbër yi ñoo lakk yàq làmb ji. yàqul amul mbor amul amul pardon amul mbor amul mbor boo dégg mu ne mbor bii ma am problème ak diw. ak ah, roma mbor amul. biir fi fii biir waaye mbër yi li ngeen di yéen li ngeen di laaj doonu mbër yi doonuñu ay mbëru di laaj ay ay cent mille cent cinquante mille benn combat ma ne promoteur fan la mën a jëlee loolu promoteur yi mu daanatul fii bi njoona dañuy xeex seen biir buguntul ah. ñoom bugutul seen biir loolu maanaam problème bi ci promoteur yi la quoi si promoteur yi bugutuñu seen amatuñu dañ dañu am problème seen biir seen biir ma am problème boo xoolee ci CNG yi CRG yi lu lu lu ñu laaj promoteur yi amuñu amuñu kii sponsor pour ñu mun na kii kon CRG yi ak promoteur yi dañu war a toog ñu xool lan la ñu mun na def ak arbitre lan la ñu mun na def ñu ranger problème bi lamb mun na ambiir biir bi njoona est-ce que comprendre mais bi bi njoona fi gàcce la boo xoolee mbëri yëpp di bëre tey village yi la boo xoolee sama combat village la boo xoolee benn combat bi village la te booy fii bi njoona fii bugg nañ seetaan lamb mu ni ko seetaan boo buggee seetaan lamb village nga dem seetaan ko du yoon te mbër yi bu ñu fii la ñuy yeewu di entraîné di boo xoolee boo yëpp dañuy découragé mënatuñu parce que boo entraîné chaque jour te amoo combat amoo sax boo xoolee sax mun nañu teg tournoi boo yi fii nii mu ne leen tournoi boo yi dañuy dem bëre. Eh, mbër yi ñoo nangatul ay. bëri tournoi. mais mbër yi tey ñoom ñoo jàppee seen bopp ay VIP du ñu nangoo bëree tournoi tey ku def tournoi. mbeur yu ndaw ndaw yi nga fay gis do fa gis ay tay tay tey kenn du fa gis gis ken du fa gis ay Balla Junior ken du fa gis ay Sa mané ken du fa gis nu mu sax nu mu tudd euh, ki xalé bu gaaw xale bu gaaw kenn du fa gis tourno bu daaw bi ken du ko fa gis. mané tourno bu daaw bi ay mbëru VIP. gis tourno bu daaw bi papi Tech. tourno bu daaw bi amul mbor bo xamanteni nangam ngay fay tourno bu daaw bi dafa wax ni man temps la tek hmm. temps la tek poids lourd temps la tek poids léger. kaale ngeen mbëri mbëri yëpp ñëw jóge village yëpp ñëw yëpp ñëw ñu bëre tournoi bu neex gis nga waxal léegi-léegi nit bu togo bu teg ko tournoi bu xool mbëri yëpp dañu map yëpp dañu map ñëw bëre billaahi maa la ko wax tey léegi amul maa ngi nuyu sama manager Bakary Cissé bu baax di ko gërëm di ko wax ni yàlla ne yàlla guddi fan mm. comprendre nga mm. di nuyu mbëri yëpp booy yëpp di leen di leen wax ni Eh, massa coono di leen di encouragé bu baax mm. nañu jàpp bëre bëre lu baax la mm. xaramul mm. sport boo xamante sport noble la comprendre nga di nuy waa bi njoone yëpp di nuy waa Marsaaso waa Jooñeer waa Sansamba waa Sonkokunda maa ngi la nuy bu baax di nuy waa Sinjaan di nuy waa Casamance daal yëpp daal comprendre nga di nuy sama turandooru Auguste bu Sinjaan maa ko nuy bu baax a baax waaw di ko wax ni na góorgóorlu. neel gars yi dañ ñëw abonné. waaw na gars ñëw abonné. Casa TV gars yi ñëw abonné. bi ñoo na waaw bi ñoo nañu abonné ci chaîne bi. voilà abonné chaîne bi ñu seetaan bu baax. Mhm. comprendre nga. Mhm. di leen wax ni les retours Auguste Auguste ñëw na. Mhm. Auguste amna combat amna victoire. maa ngi ci dem ci ben combat ambulance bu Thiès. Warna dajé dajeeg moom. war nañuy laalante man ak mom le 29 décembre bi OK. Bima fa joggé. Bima ma fa jógee bi ma fa jógee mois de janvier bii di ñëw. yaakaar naa ni war na am Afrika, hmm. Afrika Afrika bu gambi hmm. afrika noir bu gambi hmm. war na ko am. man ak moom suñu combat war na taxaw parce que waxtaan cachet bi yëpp waxtaan boobu tëddee. maar production yaa des. sama combat ak Boy Abene. lu la wax fayal lool. léegi loolu ngay tëjee quoi. comprendre nga loolu lay tëjee. ok baax ma kii maar. jërëjëf. dama la wax maa ngi ñëw jàng man dugguma ay man li ma retour Auguste man dama ñëwaat. booy abee ne war nañu bëree combat bi la amateur yëpp soxla mhm. te li li ngay wax nii yëpp ogis mi daaw combat bi te yaa daaw combat bi mhm. combat bi moom waxul amateur yee ko wax waaw amateur yi amateur yi ñoo ko wa moo ko wax amateur yi ñoo ko wax waaw ok waaw maa ngi nuy Casamance yëpp daal di nuy mbër yi yëpp waaw mbokk internet may guddi fan yëpp ba ñuy mm. combat yi yëpp xamante ni loolu waaw waaw jërëjëf yàlla gi sa wax gudd na waaw merci jërëjëf jërëjëf mbokki internetu Casa TV bi ñu na di leen wax ni ngeen abonné rek euh, ci seen Casa TV ci YouTube bi ngeen mën a am seeni i émission ëttu làmb tey dañoo seet si woon champion bu mag bi di Auguste kon di leen jox dig daje rek ba ci beneen émission incha allah